mbokk yi jërë ngeen jëf ñu di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média ci kàddu gi Cheikh Tidiane Diagne Abdoulaye Diop féete ci machine gi Yacine Pouy daal di féete ci wàllu digital bi fukki simili euh, gannaaw fukki simili ak juróom-benn gannaaw ba 10 jote jotee. fii nii euh, ci ndakaaru ak euh, li ko wër li nga xamante nag moo di xibaar bi ñàkkul ni ñu bëri jot nañ si ndax xam ngeen itam RFM saa su ngeen déggee lu ni mel maanaam chariot de feu bi xam ne am na lu xew li xaw nag euh, moo di euh, xibaar yu ñeel équipe nationale bu Sénégal jaarale ko ci ki nga xamante ni moom moo di Sadio maane Sadio Mané di euh, maanaam maanaam le meneur de l'équipe du Sénégal le technique la star incontestée du football africain ci xibaar yi nga xamante ni daal jot nañu ko moo di Sadio Mané du mën a bokk ci coupe du monde ba ñu nar a amal ca Qatar fileeg fan yi di daal di ñëw laka waral nag moo di gaañu gaañu bi nga xamante ni démb jotoon na am si seen championnat ànd sa équipe bi nga xamante ni. moo di euh, Bayern de euh, Munich gannaaw bu mu jékku la tollook daanaka ñaar fukki simili la Sadio Mané daal di kon bokk euh, génn ci googule match ñu bëri njortoon ni si saasa ba mooy moom kii di Sadio Mané du mën a bokk ci li nga xam ni moo di coupe monde bi waaye ba ñu demee ba ca kanam tuuti itam ñu tàmmalee di dalal xel jàpp ni lu war a mën a nekk la tey jii nag lañ doon xaar li nga xamante ni moo di résultat analyse yi donte nag dem nañu xool ci site officiel bu Bayern de Munich di clubam Euh, xool ndax information boobu dëggal nañ ko ba jamono gi ñuy wax ak yéen nag jàppale ni Bayern de Munich ñoom communiqué guñu euh, ci li nga xamante ni moo di seen euh, sit ñàkkul ni fileeg ci kanam tuuti incha allah dinañ ci indi ay leeral waaye li am ba am moo di ay sit yu spécialisé Euh, di jëngu ci wàllu football dal nañoo xëy xam le ni Sadio Mané du bokk ci li nga xamante ne moo di coupe du monde bi euh, la ko war nag moo di gaañu gaañ bi nga xamante ne am na ko ci plateau tibial plateau tibial bi ngeen ko déggee euh, moo dox ci diggante fémur maanaam pooju kaw gi yaxu pooju kaw li nga xamante ne moo di tibia bi foofu la daal di féetee boo seetee douleur bi fi nga koy sentir moo di ca gannaaw genou bi nee nañ nag Sadio Mané fi mu toll nii. loolu moo ko nar a xañ li nga xam te moo di coupe du monde bi ñàkkul ni danañ si dellu ba tax na saa su ne bu li euh, lii bu amee dañuy faral di seq waxtaan ak ñi nga xam te seen xam-xam dafa màcc loolu ci mbir mi di suivre football bi rawatina équipe nationale ak Sadio Mané ci kàddu gi kiy njëkk a réagir nag moom moo di président association nationale de la presse sportive Abdoulaye Thiam ñu ngi lay ziar. maa ngi lay ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. Ablaye xibaar bu ñel Sadio Mané ci yan anam nga koy yëgee bu fekkee ni itam am na ci mën a yokk lan la. ah ni ma ko yëgee mooy ni ko ñëpp yëgee maa ngi toog di seetaan euh, match bi à la 21e minute mu toog laaj pour ñu génnee ko parce que dafa gaañu. Ah, ci guddi gi nag comme ñëpp aussi je crois que ñu ngi suivre information bi aux environs de 2h du matin. Hmm. mais fu ñu toll tembe aussi man lu ma même su fekkente l'équipe bind mhm. le monde bind na Fox News bind na euh, n'importe quel euh, journal beaucoup ko mun mhm. tant que gisuma communiqué officiel mhm. bu jógee ci Bayern Dominique wax ñu Sadio Mané dal li ko dal jar na mu fan fan jar mu mhm. bañ a bokk ci loolu même loolu aussi bu amee. Mhm. tant que fédération sénégalaise de football. deful contre expertise yoonu moo ko mhm. yoon moo ko may loolu. mu def contre expertise. parce que Bayern na dafa yor ay médecins. Sénégal tamit yore ay médecins ñoom ñëpp li ñuy jàng lenn la. ñoo ko bokk tant que loolu amul mënuñu ci yey yàppi. foofu lañ toll ni tembe. frayeur kese la. parce que Sadio Mané dimension bu mu tollo ci Sénégal ak dimension bu mu toll ci aduna bi yépp mhm. effectivement bu amee blessure bu mel noonu. même ñi organiser coupe du monde sax. tiit nañu sakantuma Sénégal. surtout que surtout que Ablaye surtout que Ablaye boo coupe du monde bi ñu ngi ko euh, organiser ren jii ci contexte bu particulier euh, Niki ki démb ñàkkul ni euh, suivre nga la sortie de l'ancien président de la FIFA Sepp Blatter doon xamle ni qu'effectivement le choix bu ñu def coupe du monde bi Qatar ça reste une erreur wax. xam nga yooyu yëpp eh, dafa yomb trop. Mhm. munoo fa nekk nga jiite coupe nga jiite eh, nga jiite nga jiite ah, nga jiite FIFA. Mhm. ngeen bàyyi yéen ñëpp ba ñu tànn ah, li nga xam ne moom mooy Qatar. Mhm. man ànduma ci wax yooyu. coupe du monde du européen yi ñoo ko moom. bañ nañ ko bañ ko tuddee coupe du monde. coupe du monde bu amee moom lu mu njëkkoon a def. te woy boobu dañuy continuer di ko wéyal ñun africains yi. mooy moom moo imposé tourne-over. Mhm. mu ngi ko imposé bi Allemagne gagné Afrique du Sud en 2006. Mhm. ñepp ñu ngi fàttaliku. kii nga xamné ne moy Charlie Charles mhm. waron waroon confédération bi nga mo nek Océanie. té ñom dañ ko joxone ndigal ñu ne bo démé voter l'Afrique Afrique du Sud à l'époque du fédération yi nek ci coupe ci ci ci FIFA yépp ñoko ko voter moy 211 fédération yi à l'époque c'était les 23 membres du comité exécutif ñoo doon voter koku bu votelé woon Afrique du Sud à l'époque

ñu defar lu ñuy woowee tourne over mhm. maanaam affaire bi di wër adduna bi mhm. Mhm. du yem ci Amérique latine du yem ci Europe mais mun nañ permettre du yem continent moo taxoon nag Afrique amoon possibilité organisée pour la première fois dans l'histoire 1930 ba 2010 Afrique organisée benn coupe du monde am loolu bu ñu ci taxawul tembe soo moytuwul coupe du monde dootul amati Afrique tourne over boobu mu defoon woy boobu ba bu muy dee dañ ko koy continuer di def tey jii nii mooy première fois guleet coupe du monde di am arab musulman ñun ñëpp ñu koy sant yàlla di ko sant waa FIFA moom du waxam boobu mooy tax affaire boobu changé. Mhm. munoo woon nekk di jiitee nga def loolu ba ñëw tey jii nii ñu tëj la si parce que dafa am lu ñuy woowee FIFA gate yowaat ñoom Michel Platini yéen a ko bokkoon. Mhm. te France moom moo demoon parce que voté aussi nit ñi il faut ñu bàyyi si xel. c'est pas parce que yow yaay diriger sa euh, sa fédération yow yaay voté. Mhm. vote bu naree am fii Sénégal Augustin Senghor day toog toog njiitu réew Sénégal di Macky Sall. ñu waxtaan fan la intérêt Sénégal nekk pour ñu wote. France moment boobu intérêt mu ngi nekkoon ci hôtel Qatar. Mhm. ñëpp gis nañ société française yëpp dañ dem fële mënuñ toog fii tey. ñëwaat di naan dañuy ŋaññi Qatar parce que dëkk jullit la. Hmm. parce que dafa dafa am dëkk boo xam ne culture am wala tradition bokkul ak sa tradition wala sa culture. Hmm. coupe du monde dafa war a wër àdduna bi yëpp. Hmm. Maroc daf ko war a organiser keneen ak keneen daf ko war a organiser parce que européens yi moomuñu ko. latino américains yi moomuñu ko. parce que parce que loolu boo xoolee c'est un tout petit peu dans la géopolitique mais pour en revenir euh, ci li nga xamante ni moo di euh, blessure Sadio Mané mii wax ak yow itam maa ngi koy xaarandi dugg dugg seen compte institutionnel mais jusqu'à présent ba jamono gi may wax ak yow amagul ben réaction bi nga xamanteni ne bawoo ci club bi ngir wax wa wala déet Sadio Mané du bok ci li nga xamante ne moo coupe du monde bi euh, tout à l'heure jëm nañu entrer aussi en contact ak euh, yenn si jour génération 2002 ku ci mel nii El Hadj Diouf ak Alassane euh, ci ay xibaar yi nga xamanteni wax nañ ma ko nii fu mu toll nii ils attendent en tout cas d'avoir une réaction officielle mais ñom japp ñom gëmuñu ko gëmuñu ko parce que japp ñu ni que euh lu ni mel euh mën na war bañ nek té ñom sax ablay buñ ko waxé ñu war leen mëna gëm parce que ñom tam ils ont évolué dans le haut niveau il y a des pressions il y a des choses nga xam da fay faral di am mais quel est l'intérêt euh, le Bayern war mëna am pour téye Sadio Mané mu bañ participer disons à une coupe du monde. Bayern na amu ci ben intérêt d' autant plus que coupe du monde la nekul coupe d'afrique tout à fait foofu tamit il faut ñi bay ci. waaye clairement mhm. chance Bayern bu nekkon sagam. Mhm. Sadio Mané day participer parce que nit ñi aussi il faut que ñu fàttali. Mhm. su fekkente né Sadio Mané dem na coupe du monde dafa may ndampaay boo xam dañ ko jox Bayern Dominique. tout à fait su fekkentene ne Bayern huitième de finale. Mhm. quart de finale demi finale finale. Mhm. Bayern au delà de l'Allemagne Bayern na dafa mhm. donc Bayern na amul ci intérêt. toll le communiqué officiel de Bayern Dominique un deuxièmement Sénégal def contre expertise. tout à fait lu bu hmm. nekkente ne Sadio Mané dafa war a participer coupe du monde day participer. Hmm. warul kon du monde aussi ñun Sénégal yi xam ne équipe lañ yor. Hmm. équipe bi nag Sadio Mané dafa am lu mu ci représenté dëgg la mais. li yàlla def nag kenn mënu ci dara. Mhm. foofu la ñu toll nii tembe nekkul ne Sadio Mané dafa forcé man benn dépêche bu jógee n'importe quel encore encore une fois dama koy répété waat. Mhm. du lu jógee Europe rek. ma ah, jàpp ko ma ja ma ma j'allais en venir parce que lii moo xewoon ci mhm. l'affaire Lamine Diack. maa ko doon wax. les journalistes yu bëri teg ma lu yekk ma lu mel ni xeme. man je je refuse d'adopter la posture de consommateur. waxuma damay douter ci li samay naataangoo nekk Europe bind mais dama ne règle dafa am boo blessé sa club mooy benn génne. communiqué officiel mhm. depuis la jurisprudence Diafra Sakho. boobu Coupe d'Afrique la woon. La fédération sénégalaise de football dafa am nu mu tëddee léegi. te loolu man maa ngi ci ànd à deux cent pour cent. Mhm. bu amee dañuy am fii ay ñoom docteur Ngom. ak mhm. ñeneen ak ñeneen seen xam-xam dafa match, ci wàllu woowu. allemand yi fu ñu jàngee ñoom fu ñu jàng foofu lañ jàngee. américains yi fu ñu jàngee foofu lañ jàngee. mun nañ def suñu contre expertise ba xam exactement jàngoor bu muy àndal wala blessure bu mu am.

duñ ne tëll rek ñu ne damana ñu commencé ku nekk di wax ku nekk di truc mais mhm. yow le matin parce que c'est l'équipe bind benn défaite rek ñu jël ko mhm. tasaaroo ko ci àdduna bi ñaka ñaaka ne Sadio Mané parfait mhm. rien n'est encore officiel absolument rien man c'est pourquoi moi je refuse lépp lu jëm ci ay c'est-à-dire nag yenn yenn say nak bo dundé yenn affaire yi expérience boobu il faut mu am lu mu lay njëriñ bien sûr Sénégal duggoon na ci ay situation yu jafe l'affaire Diafra Sakho encore une fois ma répété waat ko c'était tey une blessure diplomatique et même l'affaire, euh, bah, et euh, même l'affaire, l'affaire Ismail Assar récemment, qui était donné perdu pour la Coupe d'Afrique. L'affaire l'affaire, l'affaire Ismail Assar. Gis nga taxawaay bi fédération sénégalaise l'affaire Idrissa. Mais Sadio Mané blessure bu mu amoon keroog bu ñuy mm-hmm. football contre euh, contre contre contre contre Cap-Vert. Mm-hmm. bu nekkul Sadio Mané patriotisme bëgg Sénégal bëgg football. bëgg Sénégal oui Ablaye Ablaye Ablaye ne quittez pas on vous garde sur la Céline euh, ligne et puis on va prendre la première euh, disons euh, comment je vais dire réaction officielle venant du patron du football sénégalais Augustin Senghor qui est en ligne président ñu Cher lay nuyu. Allô oui oui oui président c'est Cher Tidiane Diagne. oui oui Cher Tidiane. ba ba Augustin ça va mais xibaar bi lan nga mën sénégalais par rapport à cette blessure annoncée et même ce forfait annoncé de Sadio Mané. écoutez euh, en tant que fédération euh, nous euh, li ñu war en fait notification officielle pour l'équipe. ci équipe am médecin donc depuis que nous ngi suivre mbir mi amoon nañ dañu dafa gaañu donc euh, jéemoon nañu xam euh, li xew ñu nañu foog ñu xaar ba tey ba am position officielle euh, département médical bu Bayern moom la ñuy déglu amaana xibaar yi tam génn na mhm. duñ ci yee yàbbi parce que lu mën a nekk la démb amoon na tam yeneen xibaar yu génnoon ne mbir mi taxut ak koon garaaw noonu mhm. mais li am solo rek ñun en tant que fédération

d'entrer en contact avec euh, Sadio Mané euh, pour avoir une idée de ce qui se passe exactement. Oui, mais, mais Sadio Mané, c'est un joueur, c'est pas un médecin, je suis désolé. Ouais. Euh, euh, wax ak Sadio wala ñuy wax entourage ñu koy def. Mhm. Donc loolu du problème du budul man sama vice-président Ablaye Sow ak euh, coach beeg yëpp euh, jël nañu information yi démb. mais balaa ngay yee yàb bi nga xam nu maanaam. Euh, effectivement mbir yi tëddee donc mhm. te loolu.

Euh, li nekk ci mbir mi là en ce moment là fédération dina ref communication officielle C'est coach bi tamit comme euh, euh, bu neex yàlla suba dina génne listam ci nañ ci gën xam lu leer. mais mais les délais sont trop courts en hein, président Diganté suba que tey sur Sadio Mané ak la publication de la liste pour vendredi le délai est très court hein. bu ci côté bi. nee nañ ñu lu ñu xaar ba tey tey jeexagul day doog a door. Mhm. donc dinañ ñu wax lu leer donc nañ jël décision bi ñu war a jël. Mhm. dara terewuñu bu ñu amul lu leer ñu dugal ko suñu liste en attendant ñoom ñu wax ñu xibaar yi parce que euh, am nañu obligation bi suñu docteurs yi ak seen docteurs yi dinañu. entrer en contact. Euh, am li nga xam ne euh, lan mooy tolluwaayu gaañ-gaañ bi loolu moo am solo. xam nañ mhm. ne saajo tey gaañ gaañu na mais xibaar yi ñu am ci ay. organe de presse le jógee mhm. mais ñun xamuñu lan nous seen tous ah justement parce que parce que donc nous mënuñ ci yee yàbbi moom laa mën wax parce que bu a une da nga am responsabilité mhm. euh, Allô olala mën un am euh, dossier médical bi di ko confirmer mhm. Euh, donc clairement bu dara amee itam sax ñakul ni dina am une contre-expertise pour voir exactement ah. ma contre-expertise mom clairement moom ça ça se fera en principe pour voir si effectivement c'est ça ou pas. En attendant d'avoir en tout cas euh, la déclaration officielle du Bayern Munich. Du Bayern, waaw waaye waaye terewul. Mhm. dara parce que xam nañu ne mbir yi fu mu toll. Euh, Sadio gañu na dem ba teel na genn ci match bi te Sadio ko ñëpp nañ ko jàmbaar la bu genné rek xaj na mbir mi yombul et équipe nak xam nañ ko aussi équipe bi nga xamné euh, tay euh, bo amé amee joueur bu melni Sadio Mané bu gaño day nek lu lu lu am solo lu diis eh, si ñun dinañ ci jéem manam euh gëstu bu baax parce que euh sank lool la doon wax nit mané ko tay France bu yeewoon ñu ne ko Mbappé gaañu na sentiment bi wa tubaab bi di am mom la ñu am. effectivement Brésil buñu leen neewoon tam Neymar gaañu na tay tay tey defe naa àdduna yëpp ay tukki Brésil donc ñun tey fofu la tollu mais ni ñu dem ak dal ak xel xamné tamit eh, li am solo tay moy ñu nemmeeku mom fu mu tollu mhm. ñaanal ko mbir mi nekk lo xamné ëlëk du nekk lu diis si moom mhm. te loolu bu amee defe naa euh, ngëneel lay doon si moom d'abord balaa ñuy xalaat ñun suñu bopp wala ñuy xalaat équipe bi dañ ko ñaanal d'abord moom mu jug nu mu gën a gaaw. effectivement euh, président on le sait pas hein, mais au cas où on perd euh, euh, Sadio Mané euh, c'est quoi les perspectives quel devrait être le discours quel devrait être le comportement de l'équipe et de l'encadrement technique de manière générale. le comportement de euh, day day couper nag. allo yaa ngi may dégg bu baax. oui day couper day couper yaa ngi may dégg baax. Bah, bah, bah, voilà, je, veux dire, pour les perspectives, hein, pour les perspectives, si toutefois cette information s'avérait vraie, alors euh, quel devrait être le comportement de l'équipe, quel devrait être le discours de l'équipe, de l'encadrement technique et même de la fédération pour, euh, madame, transcender, disons, euh, cette mauvaise nouvelle, si toutefois elle se confirmait waaw bon comme nous ko waxee euh, déjà. Hmm, parce que euh, boo naree euh, passé de Mane, lu diis lay nekk équipe bu de munti nekk ci si tey tamit sport la sportif de haut niveau ak a gis nañu tamit balaa ñun mu ñuy dal nii Sénégal dal na yu France en particulier en France en particulier mhm. li am rek solo que benn joueur bu exceptionnel ci groupe bu exceptionnel. Mhm. dañuy am yaakaar ne coach bi déjà envisagé woon euh, ma li tubaab di wax scénario yëpp situation yu ne yëpp euh, dinañu xool peut-être niñ koy euh, compenser. Mhm. parce que ku mel ni Sadio kenn du ko remplacer dañuy compenser rek. Mhm. compensation am tamit du du wéeru ci benn joueur bu ñu seet. ndax ah beneen Sadio amul fii Sénégal. amul ci àdduna si. donc dañuy xool. ci taxawaay naka la équipe bi loolu te def naa wàllu coach yi la. Mhm. naka la équipe bi di euh, soppeekoo pour mun adapté wu ci loolu de temps en temps barewul nag mës nañu dal Sadio gaañu euh, euh, ñu joué sans moom. Mhm. mais tey defe naa collectivement am nañu loo xam ne bu ko tegee amaana absence Sadio dina feeñ mais dinañ ko maanaam tuuteel ba nga xam ne xëj na am nañu yaakaar performance ñuy yaas équipe ñuy xaas équipe bi. Euh, alors euh, président on va pas trop vous retenir euh, parce que clairement ñàkkul ni am na bi nga fédération juste en français votre réaction après disons cette ce mmh. forfait annoncé de Sadio Mané pour la coupe du monde. oui donc à ce niveau-là cher Tidiane ce que je peux dire c'est que au moment où on parle on n'a pas encore de confirmation officielle de la part du Bayern et surtout de son département médical par rapport à. Euh, cette blessure de Sadio Mané. Donc euh, à ce stade-là, nous ne pouvons pas... Allô? Depuis hier, nous... Allô? Oui, allô, oui, oui allez-y, allez-y, une petite coupure. que depuis hier, que ce soit moi-même, le coach euh, et certains membres de la fédération, donc le vice-président, le ministre Ablaïso, on a échangé entre nous, mais aussi avec l'entourage du joueur. certains d'entre nous ont parlé avec le joueur. Et nous étions tous suspendus euh, médicale parce que c'est les examens qui pourront confirmer ou infirmer une blessure grave ou, ou même un forfait. Et à ce stade-là, on n'a pas cette confirmation officielle. Donc nous préférons nous abstenir de tout commentaire intempestif en attendant d'y voir clair. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous prier pour que si blessure euh, il y a, cette blessure ne soit pas trop grave et que euh, Stadio puisse retrouver les terrains le plus rapidement parce qu'à ce stade-là, c'est à sa santé qu'on pense d'abord avant de passer à notre intérêt ou à l'intérêt de l'équipe euh, euh, ah, particulièrement. Tout à fait. Alors, Président, si cette tendance se, confirmait, alors quel devrait être, à votre avis, disons, le discours venant de la Fédération, de l'encadrement technique, mais également ce qui est attendu des jours pour la prochaine Coupe du Monde, si toutefois Sadio Mané est déclaré forfait, malheureusement, si ça arrivait Écoutez, euh, quand euh, on risque de perdre un joueur euh, comme Sadio Manet, c'est sûr que ça laisse quand même une grande brèche pour l'équipe nationale. Je, faisais la comparaison en disant qu'aujourd'hui, si la France perdait Mbappé, ce que je ne le souhaite pas, ou que le Brésil perdait Neymar, ce serait le même onde de choc. Aujourd'hui, tout un pays est suspendu euh, à, la, confirmation ou non de l'état de Sadio Manet ou de son forfait. Mais nous savons aussi que nous sommes équipe, une équipe. Euh, Sadio était l'identité remarquable. Mais euh, je pense que euh, une équipe a su naître autour de Sadio Manet comme joueur vedette et que justement, s'il est absent, ça nous permettra quelque part de nous remettre en cause collectivement parce que, comme je dis, euh, un, joueur comme Sadio Mane il est irremplaçable dans un groupe. On le sait, on sait comment il pèse euh, sur nos résultats. Mais d'un autre côté aussi, ça peut être une source de motivation. Et aussi, je pense que pendant très longtemps, nous avons eu à côté d'un joueur vedette un collectif qui a toujours su euh, se développer. De temps à autre, on a su jouer sans lui. Et il s'agira simplement de pallier à son absence, par compensation, mais pas par remplacement. Aucun joueur aujourd'hui euh, ne pourra placer Sadio Mané, mais collectivement, je pense que l'équipe va compenser pour pouvoir faire en sorte, euh, ne serait-ce qu'un hommage euh, pour lui, de faire les résultats qu'on aurait attendus si Sadio Mané était là. C'est la bonne approche. Après, l'entraîneur fera les choix en fonction de la décision médicale finale et que nous aurons soit de nos médecins, soit des médecins de, du Bayern. Mais je pense que notre coach était préparé à toutes les éventuelles et on a un groupe assez élargi pour pouvoir euh, quand même euh, euh, jouer une Coupe du Monde. Certes, sans Sadio Mané, mais avec, parce que dans l'esprit, on fera en sorte que son absence ne se ressente pas et que lui-même puisse vivre cette Coupe du Monde en voyant ses, ses coéquipiers se battre pour lui. Merci. Merci à vous, Augustin Senghor. Euh, merci pour la disponibilité et la courtoisie. Je rappelle que vous êtes le président de la FSF, la Fédération sénégalaise de football, la première réaction officielle euh, de la personne morale de la fédération. Donc après cette, euh, j'allais même pas dire blessure, mais ce forfait annoncé, voilà, de Sadio Mané. Donc Ablay, Thiam ndax mi ngi ci oui cher Ablaye jot nga Augustin. oui j'ai entendu. Ok, sa réaction non mais man réaction bu responsable la la deug li la don xaar ci euh, la personne morale de la fédération sénégalaise de football wax bo xamné bu jub bu dalal xel la bo xamné aussi wax bo xamné mën mun nañ koo déglu te loolu moom képp ko xam Augustin Senghor aussi loolu waru la bett mhm. li lañ don xaar ci mom mhm. wax na waxu kilifa mhm. euh ñepp xam nañ ko ci téyam ci ci ci yaram ci tegginam donc luñu mëna def rek moy luñu mëna def tay ji moy li ma waxoon sànq mooy xaar en attendant du dépêche n'importe quel euh, euh, journal bu que ci monde bi moy tax aujourd'hui ñu mëna confirmer que Sadio Mané forfait na xaar euh, ba communiqué officiel mais man aussi li même communiqué officiel Bayern mënu sur ba ñun compte compte expertise ba exactement lan un dal aussi ndax d'accord nak mom aussi wax bu mu wax santé avant parce que loolu tamit wax bu responsable la euh, balaa ñuy xalaat ñun euh, suñu suñu intérêt bopp suñu intérêt équipe wala suñu intérêt réew ñu xalaat d'abord santé Sadio Mané loolu waxu kilifa la ñu ko ci gërëm di di ko sant. peut-être Ablaye xëy na balaa ñu lay bàyyi rek euh, xam nga coupe du monde moom daanaka jot na ba pare au sein de la structure bi ngay diriger di ANPS association nationale de la presse sportive ndax lépp yem na effectivement pour que ngeen rejoindre le Qatar oui les les pour nous rejoindre euh, Qatar parce que tu wàllum euh, euh, déjà xam journaliste yépp xam bu fan fan aussi départ majeure partie le changement drapeau mhm. donc suñu président de la république ki nga xam ne moom mooy émir du Qatar def ko invité pour mu teewee match d'ouverture bi. Mhm. comme li amoon encore en 2018, mille dix huit mu profité profité waale seetaan premier match diggante Sénégal ak Hollande. Mhm. donc comme njiitu réew mi day joxe drapeau bi le 19 neuf fële résidence bu ambassadeur bu Sénégal ca ca Doha. Euh, il faut que loolu information la journaliste ñu teel a dem. Mhm. comme ça ñu mun koo fekkee. Euh, li ci des mooy tey ñu encore gërëm sant euh, état du Sénégal. Euh, via le ministère des Sports parce que euh, premier bailleur bailleur l'Association association nationale de la presse sportive mhm. état du Sénégal donc mhm. en 2018 nous subvention 50 millions la woon le mhm. ministre bu dit bi y na 60 millions wax a ba fédération sénégalaise de football ñu ngi xaar subvention ak euh, opérateur euh, téléphonie mobile bi nga xam ne moom gis déjà euh, cinq millions donc loolu le def nañ sur la place publique te ñëpp gis nañ ko mhm. encore une fois l'État du Sénégal particulièrement le ministre des Sports Yahoba Badiassara. voilà merci merci Abdoulaye Thiam je rappelle à l'intention en tout cas des auditeurs de la RFM euh, qu'on était donc euh, en discussion avec Abdoulaye Thiam, c'est le président de l'Association nationale de la presse sportive, ANPS aussi, qui se prépare à rejoindre le Qatar pour la prochaine euh, Coupe du Monde. Et on a parlé, disons, de l'affaire Sadio on va l'appeler ainsi, en attendant donc l'officialisation venant de son club, le Bayern Munich, sur un éventuel forfait de la star sénégalaise, de la star africaine et même mondiale. Sadio Mane, la première déclaration officielle du président de la FSF, la Fédération sénégalaise de football Augustin Senghor qui a eu quand même euh, un, discours euh, très responsable nest Comme toi... un communiqué officiel venant du club à partir de ce moment Nous exactement ce qu'il faudra faire mais bon, on ne désespère pas en tout cas D'avoir euh, d'avoir Sadio Mané avec l'équipe du Sénégal et si toutefois également Lolo sottiwul itam maanaam ñu dem nous marché la donc mais pour l'instant là on se rend directement à Bambali chez Sadio Mané pour y retrouver donc euh, Bakary Conté dit son correspondant dans la région de Sédiou. Bakary ñu ngi lay ziar. fay Bakary baat bi suufee na de baat da nga décourager waaw waaw découragé bu parce que bu informé parce que ma reportage. ah oui j'étais dans une zone bu amuloon. Euh, connexion connexion. pour mhm. mënoon xam lu bëri li xew. Mhm. bu une minute mhm. voilà j'ai finalement ma débouché semaine. je suis comme ça à Bambali. Euh, bu ma ñëwee këram ak si fekk euh, foofu presque c'était vide. ah ouais dafa de de de kër gi yëpp a sedd ñëpp nekk ci biir. Mhm. Euh, ma ñëw bëgg a gisante ak nijaayam di Ibrahima Touré. Mhm. après ñu ne ma dafa voyager ma jël téléphone woo ko mu ne ma mu ngi yoru Dakar. Mhm. instant yi sax mu ngi Kaolack moom tamit man maa ko informé. ah oui mais bu ma ko ko waxee ma ne ko ah dégg nañu ñu ne éventuel forfait Sadio Mané daf ma ne man tant que gisuma déclaration. façon officielle ou bien wax ma suma jarbaat du ma ko gëm mhm. ma ne ko xanaa da nga wax ak moom dëmba ci guddi mu ne ma déedéet tey su suba déggoo ko mu ne ma noonoo dégguma ko mu ne wante euh, moi je ne crois pas hmm. ba noonu laa ñëwee euh, dugg dëkk bi jéem a waxtaan ak askan bi ñëpp ñu bëri man maa leen informé hmm. euh, parce que amuñu woon am ñu ne blessure bi nii lañ ko gisee hmm. nii sax maa ngi ci lycée boo xamante ne Sadio Tabarnoko, Dougal 142 millions. Mm -hmm. Et je suis comme ça avec le président de la jeunesse de Bambali, ouais. Momodo Mané. Momodo Mané, assalamu alaikum, yen wa Bambali. Bu ngeen déggee Sadio Mané démb blessure bu mu am noo leen ko yëgee noo leen fanaanoo démb. Ah, démb moom Bambali fi kenn nelawul. ñëpp euh, découragé wala bu ñu gisee Sadio mu gaañu muy génn donc loolu dafa métti ñëpp. ñëpp xaw a découragé mais am nañu yaakaar dina delluwaat voilà ak forme ci équipe bi wala surtout équipe nationale parce que ngi koy xaar nekk euh, yaa suñu yaakaar la yaakaar dëkk bi la yaakaar euh, région Sédhiou la yaakaar Casamance yaakaar Sénégal yaakaar Afrique la ñëpp am nañu yaakaar ci moom te ñëpp ñu ngi koy ñaanal pour mu mën a delluwaat euh, ni mu mën a gaawee. ñaanuñu ko nag wante yow Sénégal sans Sadio Mané noo gisee équipe bi. Sénégal sans Sadio Mané beneen équipe lay doon. Voilà, parce que ça, Sénégal avec euh, Sadio Mané, c'est une fraise. Une, équipe euh, sans Sadio Mané, l'ENEN les donne. Voilà, donc, euh, mais amener espoir euh, voilà, pour euh, parce que sans Sadio, voilà, donc, euh, dina feeñ place am d'une affaire, loolu c'est forcé parce que mon moi, porter équipe bi moom mooy décisif marqueur là en plus

voilà donc euh, que maa ngi ñaan ñëpp euh, Afrique ñëpp euh, Sénégal ñëpp région Sédhiou surtout à Casamance ñëpp ñu ñaanal ko pour mu mën a jóg si feebar bi et waa si gaañ-gaañ bi mu delluwaat lu mu gën a gaaw si équipe nationale bi. voilà dégg ngeen Mamadou Mané moom mooy président de la jeunesse de Bambali donc Bambali tey nag depuis démb lii moo fi nekk information. Mhm. ñëpp di ñaan nag lu ñuy wax ni éventuel forfait mu bañ a am voilà donc euh, Bakary il jërëjëf euh, en a ko à donc ñàkkul Bakary certainement tu vas revenir dans les éditions avec euh, peut-être un reportage, une réaction, ou alors un vox pop de la part des populations de Bambali, là où est né donc Sadio C'est bien cela. Merci. Voilà, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, nous, dans le peut-être d'autres réactions, parce que déjà, on a eu la réaction du président de la fédération aussi la réaction d'Abdoulaye Tchab, c'est le président de l'Association nationale de la presse sportive, Bakary Conté, notre correspondant à Seyou, qui est allé donc euh, jusqu'à Bambali. Donc, essentiellement, on a, donc, euh, disons, euh, les réactions les plus officielles, en attendant celles officielles venant du Bayern de Munich, le club de Sadio Mané. Donc, voilà, on est à Sandaga, voilà. Sandaga, Fofnak, le cœur de Dakar, Fofnak, n'y a pas fait assez ña fay intéressé wu ci football danaka ñepp la ndax jaayu mbayo yeeg yooyu yu ni mel ak supporter équipe nationale bu Sénégal fofu sax dal nañ fa yebal kenn ci suñu reporter di Boubacar Dieng Boubacar ñu ngi lay ziar. ma ngi lay fay Cheikh Tidiane. euh, euh Boubacar euh, ndax mën nga ñoo wax war Sandaga naka lañu réagiré gannaaw bu ñu yëgee ni information bi ni Sadio Mané euh, du bokk ci coupe du monde bi. waaw Cheikh Tidiane comme ni nga ko waxee ma fi yegsee nag ma ngi ni déjà ci benn place boo xam ni lépp loo xool rek mooy Sénégal wala couleur nationale muy écharpe perruque laafa casquette tout ba sax brassard mhm. te maa ngi jàkkaarloo ki nga xam ne nag mooy jaay file sëñ bi tur be sant bi naka la. oui salaamaaleykum Alioune Badara Alioune Badara. Alioune Badara yow ñu ngi la fekk fii nii Sandaga ngay jaay li nga xam ne moo di maillot Sénégal yi tey jii de ni ma la ko waxee sànq Sadio Mané dañoo jot ay xibaar que ni boo moytuwul du bokk nga xam ne nag moo di coupe du monde bi dèjà nouvelle boobu naka nga kaa yiree. waaw waaw di sant yàlla rek di sant yàlla ah, di xam ni Sénégal moom Sénégal la rek waaw Sénégal moom. vraiment ñëpp jàpp nañu li ñu ñu dëgmal nii dañ cee war a am dam am ci victoire donc ñu ngi ñaan yàlla ci kattanam moom mu defal ñu li gën waaw Sadio Mané nag nit la boo xam ne bokk na si ñun te vraiment à cause de moom ñun gën nañ am courage defar suñu bagage euh, engagé pour Sénégal yëpp supporter équipe bi mu jëm kanam. tey jile bu Sadio Mané demul ko du monde Sénégal Ndiaye ak mooy parce que gis naa fee mooy Sadio Mané naka ngeen ko xalaatee. waaw loolu moom xalaat la boo xam ne moom vraiment bu amee dinañu xaw a jaaxal lool waaw parce que du ñun sax ñun dañuy jaay rek pour nit ñi parce que li nit ñi gën a bëgg gën ko choisir rek ñun la ñuy daal di fexe am ko tegal leen ko fi donc Sadio Mané bu demul dina nekk lu catastrophe ci Sénégalais yëpp quoi du doon ci jaaykat yi rek mais ci Sénégalais yëpp yaakaar naa ni du neex kenn donc dañuy ñaan yàlla ci kàttanam rek ak yërmandeem rek waaw mu def di gën quoi vraiment jërëjëf Aline Badara Cheikh Tidiane ñoo ko déggandoo damay hmm. doxantu rek daal di demaat xool beneen place parce que Sandaga fii tamit comme ni nga ko waxee sànq bari na ay ñoo xam ne dañuy jaay li nga xam ne moo di maillot Sénégal dem ci beneen place rek mhm. waxtaan ak moom xool itam gannaaw Aline Badara wax na ni bu Sadio Mané demul coupe du monde dina doon loo xam ne dafay metti si ñoom lool ma dem si keneen xool moom naka la gisee li nga xam ne nag moo di probable wala sax forfait Sadio Mané jëm si li nga xam ne nag moo di coupe du monde deux mille vingt deux bi. Mhm. salaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam sëñ bi. yaa ngi en direct si rajo Futur Média. nek édition spéciale concernant blessure Sadio Mané ak ñak demum coupe du monde yow déjà fi yaangi jaay li nga xamni modi ay maillot Sénégal naka nga accueillir lool nga bobu la xibaar. xibaar bobu mom lu ñuy dégg la muy dégg wala dañ koy dégg rek tay xamaguñ ndax dégg la am dé yow nak ak sa njaayu maillot mi yow est-ce que yaakar nga ni bu Sadio demul moy yi dina doon lo xamni nak da fay jaar. effectivement man gëm na né même bu Sadio demul maillot dina jaar ndax maillot pour Sénégal la du Sadio Sadio nak do mu rew mi la bu ñu am yaakar bo xamné dëgg la yóbbu nañu fu kawe suñu njortu amoon nañu yéene mu dem waaye su demut gàllankoor la boo xam ne yàlla moo ñu ko teg waaye pour man lépp loo xam ne war nañ ko mën a séntu ci moom rek war na mun a def ci sóor yi ci biir ñi nga xam ne ñoom ñoo war a dem quoi. Cheikh donc euh, rëcc nous donc le temps certainement ñu daal di dem il y a nit euh, ci lu ñeel li di blessure annoncée ou alors même le forfait annoncé de Sadio Mané nima ko waxé jot ngeen euh, dégg ki nga xamanté modi président fédération sénégalaise de football Augustin Senghor mom itam qui va avec beaucoup de précautions en attendant donc ñu am l'officialisation venant du Bayern Munich le club de Sadio Mané aussi Abdoulaye Thiam président de l'association nationale de la presse sportive il y a également du côté de Bambali donc notre reporter Djara Bakary Konté ma nga fa won Boubacar Dieng qui est allé au cœur de Dakar à Sandaga donc pour recueillir euh, les propos du Sénégalais lambda euh, par rapport disons à cette euh, blessure annoncée de Sadio Mané ñàkkul ni Ablaye danañ jëlat encore yenen réaction parce que ñi fété ci wàllu réalisation bi ñom Souleymane Niang ñoom Fama Dione Georges Déthié Diop Barthélémy Ngom Awa Mbaye entre autres ñom itam ñi ci bir mi jàppale nak Sadio Mané blessure nga xamante ne lañu né euh, mom la amé ba taxna du mën bok ci li nga xamne modi coupe du monde bi site européen nak ñoom ñoo jotté jot bind des sites spécialisés qui ont une certaine crédibilité mais comme on dit on attend l'officialisation nee nañu gañu euh, gaañu bi nga xamne mom moom la amee euh, ma nga fété ca ca ca gannaaw ca gannaaw genou bi manam ci diggante yaxu pooj beek li nga xamne modi tibia bi fi nga xamante ñu ko tuddé euh plateau tibial voilà plateau tibial techniquement mom lañ koy scientifiquement donc on attend d'avoir peut-être la réaction des spécialistes parce qu'également il y a tellement de médecins de sport dans ce pays qui peuvent également parler, disons, euh, de ce type euh, d'accident qui peut arriver à tout un sportif. Euh, donc on attend d'avoir les choses. Mais en attendant, si toutefois à week-end, nous disons peut-être Ubi antenne également pour les auditeurs, le Sénégal lambda, qui pourraient éventuellement aussi parler de ça. Donc du côté digital aussi, la belle Yacine Pui, moment faut d'aldi fêté. Donc, il y Aminta Ba ci Kër Massar voilà Kër Massar Kër Massar Kër Massar aca Aminta waaw ça va na nga def may nak Kër Massar na ngeen va ya ngi am jam bu baax ça va aca bismillah Aminta wa ñu ngi fi ci parcel ak unité 5 bi nga xamantene alors falo fala Sadio Mané am ay njabootam nag euh, fii ku ci mel ni nijaayam ak euh, njabootam waaye nag ñoo nañ ko fii ci biir bi nag nee nañu nijaay bi dafa daal di voyage lu mot euh, ñaari semaine ak léegi mais xew ñoo xamante ne ñoo dëkk fii nii ak ñoom Sadio Mané mhm. am na tax koo xamante ne moom mooy jaay fii sax ndekki fii ci nga xamante ne moo jàkkaarloog këru Sadio Mané bi xanaa ñu jox ko kàddu gi rek voilà aminte aminte apparemment ligne bi ligne bi déggin gi neexul je pense que on peut reprendre aminte aminte Ba moi mi nga xam moo ñu nekkal foofule ca ca Massar donc le temps que déggin gi gën a mën a neex bu ko daa defee ñëpp mën jot ci réaction yi ndax boobu ak léegi ñun ñu ngi koy topp na ma ko waxee léegi rek daal di si ànd ak yenn ci ay kilifa yi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu football rawatina Augustin Senghor moom mi nga xamante ni moom moo daal di jiite fédération sénégalaise bu football ñu bamtuwaat ko rek la mu wax ci ay kàddu moo di ñoom fi mu toll nii euh, mënaguñu wax ci li nga xamante ni daa amuñu ci lu leen leer tant que jotuñu un communiqué officiel du club. Euh, de Sadio Mané moi dit le Bayern Munich légui ni nii fi ma toog nii sax jotna naa dugg ci nga xam modi constituteur di compte euh, bu euh, Bayern Munich dugg itam sen site mais amagul ben yon fi nga xamante le Bayern Munich communiquer nañu en tout cas pour l'instant là-dessus donc ce qui veut dire que ni ñàkkul ni les gens vont voir et si toutefois cette blessure s'avère vraie faut que moi am une contre-expertise contre-expertise na bu ngeen ko déggé modi ay docteur nga pas fédération bee dal di jël fini ci Sénégal ñoy ñëw aussi évaluer la blessure de Sadio Mané ngir waaw wala dit ni euh, gañu coupe du monde bi waye lu ci mënti am rek lu Augustin bu li gën Sénégal waye tamit euh, bu aussi euh, il faudrait que l'on pense à sa carrière également et que ça peut être une source de motivation pour l'équipe donc fim le temps que ñu jëli ki nga

maa ngi woote man maa ngi dégg Parcelles laa dégg. Parcelles Assainies. mais waaw mais man ni may déggee seen réaction quoi man kontaan na ma si quoi par exemple nii li blessure la rek. Mhm. parce que par exemple waxaguñ ni nii ndax dina forfait ou pas. Mhm. waaw parce que nag war nañ mën a nekk ay sportif quoi parce que dañuy ñaan yàll rek mu bañ a nekk affaire bu graaw mhm. waaw boo xam ne par nii nag parce que Sadio bu manqué équipe vraiment dina feeñ équipe bi. waaw mais nag li ñaan yàlla rek blessure bañ waaw man daal loolu laay ñaan quoi mais gars yi ni ñuy waxee quoi naa ay forfait forfait le mot forfait daal bëgguñu ko dégg gaal. Ah, waaw ñu koy ñu koy wax yàlla bu mu am mais sauf que sauf que on ne peut pas on ne peut pas l'occulter xam nga loolu mënuñu ko occulter lu tax mënuñu ko occulter. moo di c'est des sites spécialisés yi nga xamante ni ci sport la ñuy yëngu du matin au soir. daal di joxe une telle information. nekk Sadio Mané est forfait loolu noo def mu am li nga xamante ni euh, da da dana ko def ci nit ñi mais bu le wesso bu le wesso bu ah, ah. Ah. la déclaration officielle du club de Sadio Mané pour am ci voilà c'est ça on dit la même chose hein on dit la même chose mais le Mm-hmm. bu ñu nee loolu dafay nuru loolu quoi. mais mm-hmm. préam ne war nañ mën a bàyyi buñ gars yi def expertise buñ defee affaire ba pare les préam ni dina porte wala dara après ñu ñoo xool ay date nan la ñuy nan la ñuy waxee daal. man daal loolu laa gis. waaw ku nekkal sa xalaat merci jërëjëf jërëjëf merci merci merci beaucoup merci merci. alors ñu daal di euh, jëliwaat beneen auditeur beneen auditeur donc euh, qui suit l'actualité avec euh, disons ce forfait annoncé de Sadio Mané salaamaaleykum. Euh, mbokk na nga def. sant yàlla bu baax bàyyi ngeen jàmm tur sant wi ak fooy wootee. Euh, yëkkatil kàddu yëkkatil kàddu gi ñu mën laa dégg bu baax allo. allo allo oui. waaw maa ngi tudd waa di di dañ dañ dañ laa déggul nag bu baax nag sëñ bi boo mënee yëkkati kàddu gi dana gën nga jegelaw sa téléphone bu fekkee da nga takk écouteur yi itam boo ko mënee dindi waa apparemment euh, rëcc na sax moom ñu daal di jëliwaat euh, beneen auditeur Donc il y a pas mal de gens. Bakary c'est ça. Euh, voilà, on se perd hein, parce qu'il est en train de, de, de m'appeler. Les moment que j'ai parfois aussi ma me ko wo mu en communication donc ne bokk na si nga nañu di Sadio Mané Ñakul ni sax euh, xibar yi mujj euh, mën wax Bakary Cissé di suñu natango nek fini. ci groupe Futur Média ñu daldi kon auditeur voilà le temps que ñu bien un auditeur donc euh, euh, Fama Diona Fama Diona itam bu mënee ñëw moom mi féete ses réalisation bi bu fekkee mën na ñëw euh, Fama Dione ou alors Barthélémy Ngom Souleymane Niang entre autres voilà qui se démêle comme de beaux diables hein, parce que fu mu toll nii moom <laughs> yëf te xol yi neexul ndax ku sañoon ku ne Sadio Mané dina bokk si nga xamante ni danañu daal di dem teewee di Coupe d'Afrique wala plutôt <laughs> la Coupe du Monde c'est dans quelques jours hein c'est dans quelques jours donc délai bi gàtt na trop mais bon. naka gaa yi di waxee yàlla mu doon dëgg allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waa kay mbokk ñu ngi lay déglu. na nga def maam Cheikh maa lay ziar. Ah, ah, tur wi. maam la wooyee fii ci Ndiob Sow. Ndiob Sow fu mu nekk. département de Tivaouane commune Darou Khoudoss. waa kay yow moo daf mel ni da ngaa bu baax a baax de. waaw ndékki naa baax. <laughs> Euh, ayca waaw bisimilah. yàlla xam ne ba nii ma wax yow nii damaa mel ni ko amee tension. ah. parce que euh, sérieux RFM ne boo ko dégg heure xam ne am na lu xew maa ngi du ma nëbb ab ñaay kay ba daa fekk may roger parce que damaa teg sooy di dugg sorio bi daw di duglu may duglu di duglu di duglu hmm. sama asimat li yëpp tu parce que xamul xew te yaa ngi ci àll bi incha allah waaye nag waaye nag sant yàlla sant yàlla hmm. lii suñu borom gi ñëwee ñi sëy niñu seex boo gisee sama dugg yu ci bari dama ci wax ay julli leen te nañ gën a gëm gëm a gëm yàlla mooy Sadio Mané hmm. bu waree football dina football bu waree football wallahi du football ku ne xam ne def na lu nga xamante ni man mi rek yow football li ma ci yëngu bëriwul bañ na ko match bi ba du ma ko seetaan daanaka match bi ma seetaan teel la bañ na ko équipe tubaab bi sax xaaruma daa naa am équipe sax maa lay bokk li ma dégg yëpp xam ne man football ma aayuma ci waaye nag ku sañal nag ku Sadio Mané dem coupe du monde waaye bu mënta tamit nañ gëm yàlla te xam ne bu soobee yàlla bu ñu yàlla ndab la ñu yàlla war a may dinañu ko may incha allah man daal loolu laay wax Augustin bu loolu laay wax Yankuba bu mu laay wax sama bopp parce que ñëpp dana faral ñoo bokk ci équipe ñun ñoo bokk bëgg Sénégal kon nan wàcc station yi xam ne Sénégal moom wër na mi la war a yem dafa inshallah allahu rabbi mhm, yalla na yalla defal jàmm yéen Futurs Médias amin raw ci amin ya rabbi amin ya rabbi mbok kon doon woote foofu non ci département bu Tivaouane donc euh, auditeur yi je pense que on peut également euh, voilà les prendre ben par ben le temps que également ñu am des réactions euh, d'autres personnes euh, yi nga xamanteni ni nañu lool équipe nationale ku si mel ni Ousseynou Diouf ñom Alassane Ndour yi tam jéem nañ leen jot waye ñom euh, voilà ils sont un petit peu sonnés donc ils attendent certainement d'avoir l'officialisation mais lañu xamné li modi di fu mu toll ni si ay kàddu yi nga xam wax nañ mako légui léegi te sama Fama jonne mi jot a waxtaan ak ñom jot na kii ñoom nee nañ ñoo gëm mbir mi faut rek ñu xaar euh, ba am l'officialisation donc euh, de de cette euh, blessure ou alors de ce forfait té ñom buñ ko waxee ñu war leen gëm parce qu'ils ont évolué dans le haut niveau dans des clubs et parfois il y a des choses qui peuvent s'y passer voilà on attend de voir en tout cas quoi qu'il en soit mais jappalé ni Bayern Munich ba tay yi ñi wax yeen limu am ci diplomatie Sénégal limu am ci culture Sénégal limu am ci lépp li fi ñu jëm dafa nekk fi nga xamanteni dafa am solo ci affirmation wu sénégalais. tout à fait donc loolu bu tegoo man li may rafetlu d' abord li may mhm. li ngeen poser le débat vous avez peut-être d'une manière ou d'une autre vous nous plongez dans l'environnement de la prochaine coupe du monde. tout à fait. parce que man bu ma actualité Sénégal li filles daw yëpp. Mhm. Mbalo, mbaaloo Xiro mhm. alors que nous sommes champions d'Afrique. quand même. nous allons dans dix jours à une coupe du monde on ne sent pas. l'effervescence débat le débat teguñu ko manam feeñul ci ambiance de bi mhm. ce n'est pas je ne ce n'est pas une question du ministère ce n'est pas une question de tout c'est que Sénégalais, ñoo war mhm. plonger dans l'environnement du mondial ta xam ni Lignes, li ñu am mu mun ñoo ont moom xew muy le football maintenant bo ñëw ci li xew mhm. mooy dine que amna ci lu lu ñu mëna on attend l'officialisation pour du communiqué du Bayern mais nous attendons également la réaction, je salue la, tout de suite la réaction du président. Euh, Augustin, très responsable Très, très, très modéré. Mhm. Mais -hmm. Mais la réaction également de la, de la fédération au cas où cette mauvaise nouvelle se confirmait. C'est-à-dire dañu jàpp ni loolu bu amoon contre expertise war na am parce que bu ñu ça Sadio Mané le football dans un environnement bien nga xamante ni ña koy fay tey commandé mën def dans dix jours day wara a nekk en compétition olof day wax ni xel bu teuy ñaaw te wa c'est-à-dire lepp lu ñu indil na nek li nga xamanteni ni ko mëna contre expertiser saytu ko xam ni bu bu amé rek c'est parce que mon mo fi rappelons que Pepe euh, le défenseur du du du Real je pense mais en Coupe du Monde 2014 à quelques jours mais opéré d'un coup du genou football coupe du monde donc moi je pense que ce may moi, résignation c'est-à-dire résignation là bañ Moi, nous avons ni rek mbir nous ne nous euh, Bayern bu Bayern na ni am ñu nous nañu def ni yi doon wax candidat même sur une civière nous la présentons c'est vrai que sur une civière on présente personne. Mhm. mais de bëgg ñu xam ni nous mhm. c'est des enjeux extrêmement importants. au plan du monde qui se joue. et ce jeune parti de rien qui a compris qu'il n'y a pas de traversée il n'y a pas de traversée de désert. mais mhm. il n'y a que des pas vers l'oasis. ce garçon qui s'appelle Sayomani est en train de bouleverser toutes les inégalités. donc je pense que man wax mais nous savons que enjeu dafa dépasser enjeu football rek communiquer pour mhm. bu. bu bu bu bu ni expertise médicale Nous mhm. ñun war nañu une contre expertise médicale. justement justement justement El Hadj Malick euh, juste avant de me rebondir ci l'ol parce que euh, bon c'est vrai que sur les réseaux sociaux euh, clairement il peut y avoir également des informations yi nga mais bon dans une ci plateforme yi nga on va prendre ça avec des pincettes lu ñu bon ils disent que la blessure de Sadio Mané devient un dossier d'État le médecin du président Macky Sall et de la fédération mis à contribution pour aller directement en Allemagne. Quelque chose n'est pas normal dans les résultats des tests et analyses faites par le médecin du Bayern Munich, d'où le retard du communiqué du Bayern et la mission du médecin du chef de l'État. Euh, Sadio Mane aurait-il demandé au président Macky Sall que l'État du Sénégal euh, le prenne en charge N'a-t-il pas confiance au médecin du club Wait and see. te terminer. Mhm mais bon, amen. je devrais je serais très fier je devrais nous devrions fier chandelle au président de la République. Hmm. affaire Bidou, affaire Bundaou. Hmm. c'est-à-dire que nous ben boy, bi nga xamante ni dañu forfait mu dem kii dafa war a dem pour pour déséquilibré le li am. mais justement ça rappelle même l'affaire l'affaire Ismaïla Sarr euh, coupe de coupe d'Afrique bi weesu il était déclaré forfait te xëy fédération bu bàyyeeku woon son club euh, comment s'appelle Watford xëy na du du Ismaïla Sarr du ma sa dem eh, coupe du monde coupe d'Afrique plutôt. dama lay wax gis nga la wolof yi di wax laay wax li mag ñi wax xel bu tëwee ñaaw tëwee jariñ. Mm-hmm. li ñu wax noonu yal na fekk ni nek na dëgg yal nañ ko def un problème d'état. Mm-hmm. nañ ko jël en charge ba bu ñu nee Sadio Mané du mën dem. ñun ñëpp ñu xam ni parce que dafa mënta dem parce que ñi koy saytu naan doo dem dañoo am seen équipe nationale muy dem te Sadio mën na leen a duma. Mhm. dama ni. Mhm. Sadio Mané. Mhm. nii muy demee nga xamante ni dañ ñi du dem. ñun dañuy ñaan yàlla mu dem. mais ñi wax ni du dem dañu ci am intérêt parce que ñoom seen équipe dañuy dem te seen équipe bu ñu demee Sadio Mané mën na leen a sëngëm loo donc c'est un problème n'ai pas envie de remettre une mais li ñu wax fofu dëgg la. Mhm. en charge saytu ko te yéen li ngeen def euh, euh, groupe Futur Média nous saluer parce que vous vous da au moins dans l'ambiance de la Coupe d'Afrique. Mhm. et le bonheur national brut. le bonheur national brut du Sénégal a besoin de cette Coupe d'Afrique là, de cette, mhm. Coupe du Monde là. Tout à fait. Merci. Merci, merci à vous, Maud Malik Bayan, le euh, directeur général de l'ANAMO qui a réagi en tant que Sénégalais lambda sur, cette, euh, sur ce forfait annoncé donc euh, de euh, Sadio Mané moom mi nga xamante parce que là là on met à contribution tout le monde qui euh, comment s'appelle Ablay comme Awa moom mooy yëngu ci walum santé ci kër gi itam jot na seq waxtaan ak à nga xamanteni ni seen xam-xam dafa ci mbir mi donc le ñu wax ci Sadio Mané moy blessure euh, manam plateau tibial manam bo xolé moy yax bi nga xamanteni fa la ñaari yax yi daldi daldi manam euh, comment je vais veut dire euh, l'os du tibia ak fémur bi donc mm. euh, fa la ñuy tase donc bo xolé nañu fa la blessé awa ndax ma nga ci indi ay leeral rek. waaw euh, Cheikh Tidiane juste 50 secondes rek. Mm-hmm. di wax né jéem nañu wo borom xam-xam yi ci walum orthopédie traumato pour ñu wax sen xam-xam ci li nga xamante ne mooy nouvelle bi nouvelle bi mi ngi dog daanu ci wàllum kon participation Sadio Mané. ci mm-hmm. coupe du monde nee nañ nag dara leeragul waaye ñoom ñëpp nee nañu instant bi lu ci nit wax rek.

ganglion euh, oom dafa bëri manam suux loo tendon bu nek ak euh, li ngay joué euh, ci nit ki ci li nga xamantene mom mo nek nekk yëngu-yëngu yu mhm. donc comme homme dafa nek lu am solo ci nit surtout ci walum tàggat yaram nenañ nak il faut ñu xam ba xam ban xétu tendon la homme mhm. bi ban mhm. xétu tendon la ba paré ñu doga xam ni li manam euh, bu nekkee garaaw na wala garaawul lésion bobu ñom si lañuy mëna mën tënku pour mëna wax deug deug effectivement pour mëna évaluer. voilà pour mëna évaluer comme instant bi euh, tout le monde prend euh, l'information avec des pincettes des pincettes parce mhm. qu'il faudra peut-être des résultats clairs. Mhm. ñom tamit nee ñu ngi xaar comme ñëpp. xam nga mhm. tamit ñom tamit. des ah, spécialistes parce que Augustin loolu la wax mom itam. voilà xam nga tamit ñom tamit dañuy sétane mais ñi ma woo ñoom borom xam-xam lañu ci wàllum wo mais nee ñoom seetaan nañu demb mais comme jox comme jugal na bopp comme dox. Mhm. donc lolu peut-être tendon yi la te mhm. dinañ xol mhm. euh, ba xam après lan mo ci tuké ñom itam dinañ dikkaat. ñëwaat euh, wax. te tendon bo déggee ni grano xété mo am rupture du euh, du tendon mais comme xëy na àggaguñu foofu ak moom donc clairement voilà peut-être qu'il y a des possibilités mais comme tu dis rek médecin yéen mom ci ñom nga bok ñom dal bala ñu wax mën nañ koy ci lu leer. voilà c'est cela comme ñom ñoy wax ma. indil leen voilà nga tënk ko ne ñoom ñoo ko wax. <laughs> naa bàyyi kon ñom ba ñu indi lo xamantene ne. voilà ah, leer na. tout à fait euh, surtout jëm ci li ngeen ni wax déclaration officielle. bi ci la mëna mën a tënku ndax xam ne euh, tey fii bi toll ci walum tàggat yaram euh, les autres compétitions. xam nga hmm. lolu avis médical daf ci am solo. bu docteur ne diw. Mhm. du jouer du jouer Le docteur ne qui jouer wala mène mhm. joué jouer commencement bi ko mhm. voilà donc avis médical euh, de am solo peut-être euh, on peut être dans le déni déni réalité uh-huh. ne ma mais ni comment je vais dire euh, nee on est dans le déni. voilà déni wa bon loolu on est dans le déni donc euh, déni mooy peut-être mu am ben affaire yo nga meuna a gis ko mais bañ doo ko meuna gëm. voilà do ko gëm sa sa xel moo koy bañ. sa xel moo koy bañ effectivement euh, sa xel moo koy bañ. xibar bi xamuñu nak nan lay nan lay mujjé ak lu mu ci mënti doon Cheikh Tidiane ñu delloo la kàddu gi. voilà voilà merci merci merci Femme, femme, tu tu peux venir parce que yéen ñëpp féete ci réalisation bi là c'est un ancien de la RFM qui est là Boubacar Kambel Dieng. Jeng Sall ñu lay ziar mais Bouba no def mais mais Bouba yaa ngi mën football ba tey <laughs> gisna gisna Gisna la gisna la keroog ngay ngay tël ay bal quoi mais nak da nga commencé jëm mag Bouba wa ah. mi ngi non ça ci commence à prendre de l'âge <laughs> <laughs> n'est-ce pas alors euh, euh, Campbell, cette information sur Sadio Mané yow nako dundé déjà. non parce que demb biñ ko kiiyee ñun ñëpp dañu am dañu am mbetteel. Mais moi, je vous donne des informations après un recoupement avec tamit source sûre au niveau de de l'Europe Sadio Mané selon les premiers résultats yi donc Sadio Mané devrait être absent pour 4 à 6 semaines. Il ah ah. devrait être absent pour 4 à 6 semaines. L'année li nga xam ne mën nañ ko ci dolli moom mooy euh, Sadio Mané sauf miracle de la médecine il ne va pas participer à la Coupe du Monde. Hmm. selon les premiers résultats. Hmm, hmm. des résultats officiels wala. maintenant faire les premiers résultats de la de la médecine. Résultat résultats yi mu jot a def. diggante démb ak Sadio Mané selon mes sources nga ce sont des sources fiables et hmm. généralement bien informées. Ils hmm, hmm. Il devrait être absent pour 4 à 6 semaines. Mmh. Il devra cependant faire des résultats complémentaires entre aujourd'hui et demain. Mais nous avons sauf miracle de la médecine. Blessure, bien que nous avons bi nga xam jot nañ ko gis léegi nii donc Sadio Mané nañu génn suñu xel day bokk ci coupe du monde. Mhm. donc c'est une blessure. Mhm. kama jox tamit information bi. moom euh, waxtaan nag ki nga xam ne moom moo di agent bu Sadio Mané. Mhm. effectivement il a confirmé que sur la base des résultats yi ñu jot a am nii Sadio Mané du mën a bokk ci coupe du monde bi. sauf miracle de la médecine am na am na ñi nga xam ni peut être daa ñëw daa ñu am blessure yoo xam ne doo xalaat bi sax daa ñu daa ñu joué. Mhm. Mhm. peut-être malaise cardiaque mhm. donc c'était des informations mais on attend toutefois on attend bah. euh, la la déclaration officielle du Bayern Munich et puis même nationale va dépêcher sur place. pour contre mhm. euh, son staff médical et tout. ça a été même dit tout à l'heure ça a été même tout dit euh, dit tout à l'heure par le président Augustin nous, nous, tout à fait mhm. Nous nous nous nous Nous exactement euh, vraiment nous nous mhm. ça nous est arrivé. lors de la préparation nous coupe coupe nous nous à El Jadida bon ça demande blessé na blessewul blessé blessé donc entre les deux staffs médicaux. nous mhm. avons waxtaan exactement ban décision officielle la voilà voilà mais là, dans la la partage, partager avons en attendant ñu faire l'évolution évolution dossier bon faire des examens complémentaires. les heures qui suivent après nous avons exactement lan lan lay quoi. Mhm. mais quoi qu'il en soit l'un dans l'autre ce sera un coup dur pour euh, pour pour l'équipe nationale. Vous par extraordinaire vous jouez mondial est-ce qu'il sera à 100% bon que tamit jeu ko tamit vous tamit bon c'est voilà nga wax 4 nga bon mhm. c'est en fait, ce sera une grosse perte pour l'équipe nationale. Voilà, voilà. Et bon, on ne le souhaite pas. Mais, mais au cas où, pour Campbell, peut-être nous au cas où euh, Sadio Mane est forfait, euh, quels devraient être les réajustements que nous faire et l'équipe pour remettre, disons, euh, l'équipe à flot, euh, parce que au-delà de, de, de l'individualité que nous avons, euh, le football, c'est d'abord un collectif. Euh, le football, c'est un collectif. Mais cher, mhm. Sadio Mane, si on équipe, mhm. sur le plan mental, sur le plan moral, mhm. wax dëgg yàlla dana am lu barré, bare bare bare li nga xam ne dana manqué équipe. dëgg la. joueurs sur le plan mental dana desaat fokk mu amaat nag ñi nga xam ne dañ leen di ñëw delloo ci waat parce que quoi qu'on dise Sadio Mané ni ñu koy waxee actionnaire majoritaire de l'équipe nationale. Mhm. C'est une dernière performance C'est lui. Nous pouvons alhamdulilah. Mhm. ñëpp notamment la Coupe d'Afrique Afrique bi qui jël ci mhm. qualification coupe du monde ci loxo Sadio Mané. les et tout. donc vraiment day doon nga il est assez aguerri il est assez professionnel. pour trouver la bonne la bonne formule. voilà voilà Campbell vraiment merci en tout cas pour euh, toutes ces précisions un réel plaisir en tout cas de vous retrouver sur la 94 FM, la radio Futur Media qui suit donc depuis ce matin cette information concernant le forfait annoncé de euh, Sadio Mané. Boubacar Dieng dañuy Daldi, di euh, Fofu euh, Sandaga Boubacar le temps peut-être ñu amaat aussi Aminata Goudia plutôt Aminata Ba ca Massar Fofu la famille Sadio Mané daal nek Bobakar Boubacar. waaw Cheikh Tidiane. bismillah.

un forfait ben coup dur yow tay jilé xibar bi nak nga ko dundé en tant que sénégalais. bon euh, métti na trop métti na trop euh, Sadio mooy suñu yakar actuellement. Mhm. waaw métti na trop franchement parler xaw ma si c'est confirmé voilà. Et comment imaginez-vous li nga xam nak moo équipe du Sénégal une équipe du Sénégal sans Sadio Mané. waaw sans Sadio Mané mom danak suñu adversaire euh bo déggee Sénégal rek. daanaka Sadio Mané ma ne mooy donc euh, en tout cas dina métti trop. Mhm. ñun voilà. dina métti trop euh, Cheikh Tidiane. oui ñu daal di ëlbatikuwaat euh, xool keneen di ab tamit doomu Sénégal di ab ndaw nekk koo xam tamit dafay suivre li nga xam ni moo di actualité sportive sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar si sant yàlla bu baax ñu ne laaj yow tey ji la naka journée bi. Ah, sant alhamdulilah.

non waaw loolu moom di boole sama ñaan moom bu ma jullee moom vraiment oui ok c'est Tidiane donc voilà Boubacar oui waaw waaw ñu bàyyi la rek xëy na ci kanam nga ñëw avec un reportage sur euh, les réactions des Sénégalais après disons euh, ce forfait annoncé de euh, Sadio Mané pour la prochaine euh, Coupe du euh, Monde. Je vais réagir Donc déjà, euh, des tweets un peu partout. D'abord, on va commencer par celui du, euh, par celui donc du premier Sénégalais, en l'occurrence Macky Sall, le président de la République du Sénégal. Alors, dans son tweet, bien Sadio, je te souhaite prendre rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern Munich contre le Werder de Brême. Comme je l'ai dit, Sadio, cœur de lion, de tout cœur avec toi, Dieu te bénisse. Donc, euh, c'est la réaction euh, de, du président de la République, Macky Sall. Yusnour également, la star planétaire est incontestée. Euh, roi de la musique donc qui a aussi tweeté pour dire pour yalla moy dogal yalla na Sadio l'homme propose Dieu dispose que Dieu te redonne un prompt rétablissement champion Sadio nous sommes tous à tes côtés donc euh, c'est une réaction de Youssou Ndour euh, notre confrère de Canal Malik Traoré à l'heure où l'on se parle, la nature de la blessure de Sadio Mané est toujours à l'étude. Sa participation pour le mondial n'est donc pas remise en cause pour l'instant. Donc, une voix discordante euh, venant d'un journaliste réputé, donc Malik Traoré, euh, de euh, Canal. Donc, entre autres réactions, juste pour euh, donner donc un petit peu euh, les différentes réactions aussi Augustin Senghor le président de la fédération sénégalaise de football qui a réagi en premier euh, pour donc tempérer déjà dans un premier temps et dire attendre donc les résultats venant du côté du Bayern de Munich Malick Mbaye aussi le directeur de l'ANAMO aussi il a réagi en tant que sénégalais lambda aussi pour donner sa position et qu'à son avis que ça devrait être pris disons, euh, par l'État même du Sénégal. Et apparemment, euh, selon des informations que nous avons ça et là, qui ne sont pas en tout cas euh, sûres à 100%, il semblerait que l'État a pris par devers lui cette décision d'envoyer même un médecin de la présidence, donc Mominga donc pour confirmer Mado Malik parce que ça va maintenant au-delà de la simple personne de Sadio Mané et du football en particulier c'est même l'image du Sénégal qui est en jeu donc ñu daal di dem ca kër euh, Massar foofu daal di fa fekki Aminata Ba kër Sadio Mané voilà foofu la Sadio Mané Nek, dégg naa ko ak i njabootam ak i plutôt allo Aminata. Allô, oui Sadio voilà bi yoon nag déggin gi moom neex <laughs> d'accord kon ayca Bismillah. bisimilah. waaw ñu ngi ba fii ci Sadio Mané ñu nekk fii nii ak cotisé yi nga xamante ñoo bokk ak alignement kër Sadio Mané ñu ngi nii am kenn koo xamante ne moom la taxawal euh, tur bi. man Assane Sam laa tudd. waaye ñuy ñun daal. Euh, ak Sadio Mané tey jii dafa am. blessure ya, c'est ah, mhm. pas moi le itam man nañ ko waxee ci coupe du monde bi yéen en de ko do na ngeen ko gisee ah man de bu ma ko déggee wax dëgg ndekkiwu ko hmm parce que Sadio mom suñu Sadio la wax dëgg yalla té liko dal ni yéné wuñ ko ko hmm xam nga yéné wuñ ko ko té le Sénégal sans Sadio Mané ala coupe du monde ah man de du neex ci man wax dëgg hmm man de du neex ci man té nañ ko ñaanal yàlla nag dañ ko ñaanal yàlla xëy na lii dafa nekk cat boo xamante ni day génn rek te mhm. wax dëgg yàlla njëkkee wuñ ko te duñ ko mujjee boo xoolee ci la France rek ñaata jour lañ ñàkk mhm, bëri na yeneen jour yi ñaata yenn équipe ñaata jour lañ ñàkk mhm. xëy na gis nga borom bi kuy defar dafa mel ni dafa doy na waar daal man dama ko gisee yeneen yeneen yu gën a garaaw daal xëy na bu dem coupe du monde bi ñu jéem a ñaan yàlla suñu yeneen jour yi nga xamante ni ñoo fi mën a ne ñu muyee la mayoo rien que pour Sadio Mané jërëjëf. d' accord merci beaucoup Serigne Thiam. Euh, hmm. Cheikh Tidiane xanaa ñu wax ak keneen rek koo xamante ne moo ngi fii nii sax ci pied kër Sadio Mané bi. sax yow mënoo mënoo accéder ci kër gi. Euh, non kër gi nag instant bi moo toog ci buntu bi ba pare nee na kër gi kenn nekk fi xale yi ndaw yi rek ñoo fi nekk. ah d' ñi ñu ngi génération foot loolu la ma wax. Hmm. am na ñenn daal ñoo fi def mooy jigéen ñi wax naa ko parce que nee na ma mère bi mooy. Euh, soxna hmm. nijaayam bi dafa daal di dem marché ñëwagul hmm, ki nga daal koo xamante ne dëkkandoo la mu ngi fii toog ci uh, ci pied kër Sadio Mané bi xanaa ñu daal di koy dégg. micro bi ah, bismillah ñu jël ko ñu jël ko ah, ah en tout cas euh, avec beaucoup d'appréhension nag ndax wax dëgg yàlla foog ñu nangu ni Sadio maane quand même représente beaucoup euh, ci suñu équipe nationale bi ndax boo seetloo léegi rek euh, maa ngi doon déglu Boubacar Kambé li mu wax dëgg la Sadio Mané vraiment moom mooy koo xam ne nii mënuñoo ñàkk a wax ci moom. Mm-hmm. mu mais nag ay nit lañu. Mm-hmm. donc ñaari côté rek lay nekk benn bi moom mooy la côté sportif mu nekk lu manqué équipe nationale dëgg dëgg dëgg dëgg. mais ñu ngi ñaan aussi que ce soit une source de euh, vraiment de motivation. Mhm. pour yeneen xale yi nga xam ne nii ñu ngi nekk foofu ak moom ci équipe nationale bi. bon parallèlement aussi mooy que ni nag euh, euh, ay sportif lañu. Mhm. gëm nañ yàlla aussi ñu ngi koy ñaanal vraiment à ce que mu rétablir promptement pour mën a bokk ci parce que ñaari match ñett ba ñeent ñun xam nañ ni yaakaar nañ ni dinañ ko dépassé. Mhm. boobaa dina Sadio Mané dina rétablir pour dellusiwaat. sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax. voilà Cheikh mm-hmm. oui amaana rek ñu jéem a wax ak vigile bi xool ba xam bu fekkee dinañ mën a accéder ci biir kër gi. ba tey xool ba ñu xool ba xam rek lambatu ba xam rek. d'accord waaye incha allah. voilà donc à tout à l'heure Aminta. Voilà, donc, euh, Minginon, Ablaï, je pense qu'on pourrait continuer à prendre en tout cas les réactions des auditeurs euh, qui suivent donc la RFM depuis tout à l'heure avec euh, cette antenne spéciale. Allô, salam alaikum. Euh, alaikum, Kilifa. Wa alaikum salam, ziar ñu ngi lay delloo ziar. bisimilah ci waxtaan wi tur wi ak fooy wootee. maa ngi tudd Boubacar Diarra di wootee Kees. Mhm. di woote nag en tant que sénégalais en tant que supporter. Mhm. di sukkandiku si kaddu njiitu réew mi mooy le président de la république gardien de la constitution. Mhm. mooy que ne ñoo ngi ñaanal sunu frère sunu euh, ambassadeur. Sadio Mané yàlla nag yàlla defal jàmm mu jóg ak jàmm si lii mu nekk. amiin yaa rabbi. ndax lu way di mëna a xalaat wala lu way di mëna a wax rek hmm. fof nga mëna mëna mën parce que lepp rek suñu borom lay déllu ah ñoo ngi ñaan aussi ay frère ñu nga xamantene nek nek ay sénégalais nek ay ambassadeur nek si équipe bi hmm. parce que euh, Sadio Mané jour le mais amna na ñu koy paas pour mu def lu rafet ñu hmm. koy pour mu pour mu dugal amna ñuy organiser te ñom ñop ñoo bokk même objectif kon ñoo aussi yalla ñu yalla may dal ak wër ak gudd fan ba li suñu objectif ñun sénégalais mooy dem coupe du monde ak jàmm indi coupe bi Sénégal ci njiitalu suñu président mu téye coupe bi ñu savouré ko. Mhm. Euh, bu ma siy teg mooy que dama leen di féliciter yéen vraiment. Mhm. ndax euh, muy malal muy yow muy képp ku nga xamante ne yaa ngi nekk ci sport nekk ci télé bi ci rajo bi. Mhm. vraiment ñun askan bi dañaa kontaan ci yéen. cest dire que lu ñuy namm wala lu ñuy xalaat wala lu ñu bëgg lépp ñoo ngi koy am ci yéen. kon tout d'abord dañu leen di ñaanal yéen tamit yàlla na leen yàlla may wër may leen kattan ak xam-xam bu mucc ay mhm. ba liggéey bi ngeen eggale ko ak jàmm. parce que lii mooy Sénégal c'est très important. Mhm. tey ji ñoo ngi waaj a dem coupe du monde am na lu dal sunu su sunu sunu sunu benn jour. Mhm. tey jii yéen ngeen ñëw ubbi si débat bu extraordinaire pour nit ñi waxtaan si. dellu si parce que ku nekk su ñaanee rek ci baat bi wax amin mu nangu kenn xamu ko. te ñëpp seen yéene mooy Sadio Mané ak jàmm ba fekk ji ay ay moroomam. tey jii tamit ñoo ngi nangu euh, ministre bu nga xamante ne mooy ministre des sports. Mm-hmm. ñoo ngi koy ñaanal ba Diattara yàlla na yan bu oyof ci kawam. ku ko xam xam ne doomu kees la ku ko xam xam na ne ku am jom la ku ko xam xam ne tey jii président dafa am kon si moom confiance jël loolu dégg ko ko mm-hmm. mu ànd sax ak frère am nag ku nga xamante ne mooy euh, euh, ministre bu gënd bi Matar Ba nekk ku baax ku yéwén te xam naa ne tey jii solidarité gouvernementale. président Macky dafay teg ay ministre yoo nga xamante ne ñoom ñëpp ay benn lañu ku si nekk yaa ngi jàppale sa morom ci xam-xam ak si lu nga xamante tey ji askan bi ne a am jàmm mhm. en tout cas kàddu la woon jàppal na waa Kees ñu nga xamante ne aussi tamit ñoo ñoo nekk euh, euh, ay supporters ñoo ngi ñaanal Sadio Mané yàlla na ko yàlla yëkkati si jàmm. amiin amiin euh, kontaan nañ ci président Macky Sall kontaan nañ ci aussi si Youssou Ndour ah. jërëjëf jërëjëf tamit même chose ah. wax dëgg mhm. yàlla moom moo ñuy représenté ambassadeur bu mhm. extraordinaire la.

mais dañoo xam ne aussi euh, xale yi ay professionnel lañu. Mhm. te man amoon na sax Sadio Mané bu joué bu ko yàlla bu yàlla bu mu am nag. Mhm. ñaari ñu ko bu amoon motivation supplémentaire la ci xale yi. tout à fait. waaw dina leen gën a motiver te euh, donc donte Sadio Mané moom incontournable la. Mhm. kenn mënu kaa remplacer. waaw <laughs> voilà dañuy compenser mooy ni ko Augustin waxee rek bu fekkente ne loolu am na dañuy compenser parce que Sadio kenn mënu ko ko remplacer. tout à fait. mais nag yi nga xam ne moom la ñu jot ñu ñu ñu président ci parce que tubaab yi itam am na lu ñuy doxale de. Hmm. waaw tubaab yi bon xëy na am na information yoo xam ne yu fiable la yooyu yëpp dëgg la. Hmm. mais nag ñu ñu xaar ba Bayern na communiqué. Mm-hmm. aussi euh, euh, médecins yooyu ñuy wax ñu dem xool xoolal seen bopp ba xam. Mm-hmm. mais bëggoon nañu dégg aussi avis Ablaye Diaw. Ablaye mm-hmm. Diaw. waaw ngeen jël ko ñu wax déglu parce que moom xalaatam comme mag la. d' accord au niveau de la réalisation ñu ngi lay dégg. waaw ñàkkul ni ñoom danañu danañu woote mais lu ci mënti am rek ñu ngi lay jaajëfal sëñ bi. yàlla ko yàlla may voilà merci beaucoup jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu daal di kon bokk jëliwaat euh, beneen auditeur. wala une réaction officielle euh, venant peut-être euh, voilà la fédération am nañ ko ba pare donc fédération am nañ ko ba pare on a déjà donc euh, la presse sportive on a aussi peut-être ministère des sports ñom ñu xaw manqué mais quoi que l'on dise dal amna li nga xamanteni dal amna am na ba pare salaamaaleykum. aleykum salaam. mbokk mi na nga def. maa ngi sant bu baax tudd ak fay wootee. maa ngi jégalu tur bi. waaw bismillah ci waxtaan bi kon. waaw dama bëgg a participer ci émission ci waxtaan bi rek. ay ci bismillah bismillah waaw premièrement mooy dañ ko ñaanal mu wér ak jàmm. parce que lenn mu nekk am na si ah. te yàlla euh, mën na ko saafara. donc euh, élément bu bu bu bu bu baax rek ci équipe bi. boo xam ne aussi kenn yéene ko lu mel ni parce que dama ay xeetu joueur yoo xam ne ñu teew ci coupe du monde daf ci baax parce que euh, day day neexal coupe du monde bi daal te moom ci la bokk kon vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla yëkkati ko bañ egg si ak jàmm ak salaam. incha allah Euh, ñu dalal xel yi parce que c' est pas la première fois lu mel di am. Mm-hmm. parce que boo xoolee deux mille deux usine di Nigerland bokkoon na ci ci euh, ba dem fële Corée du Sud. Mm-hmm. mais ci benn match amical rek mu am mu am blessure bu joué wul presque mën naa ne ci dernier match la joué. Mm-hmm. donc loolu moom mook mook mook football ñoo ànd. boo gisee France temps yi gis nga Paul Pogba aussi. Euh, dafa forfait. Benzema sax demam wóoratul. voilà exactement donc football la rek. loolu toujours day am. Mhm. donc euh, bu yàlla dogalee lii aussi bon dañ ko koy sant parce que mënoon mënoon naa demee neneen. Mhm. parce que joueur dugg na ci terrain leneen fekk ci ne. ba léegi nii joué tul. Euh, donc du ma bëgg a wax yenn yi mais. yi euh, on comprend on comprend. joueur tournoi bah, boobu. waaw tout à fait encore dem na ci Europe yi mais gis nga ko. fa la jógee lu lu leen mënoon naa xew. Mhm, mhm. donc Sadio euh, Abdoulaye lu mën a xew. aussi tôt ou tard day ñëwaat ci terrain bi. voilà yàlla baax donc euh, donc loolu loolu vraiment nit ñi aussi dara seen xel quoi. yàlla moom. c'est ça. moom li mu bëgg def kenn mënu ci dara. dëgg la kàddu gi kàddu gi rafet na donc def aussi bu jàllee di nga xam ne lii moo gënoon. voilà c'est ça kaddu gi euh, propose il dispose daal. voilà mi ngi noonu yàlla ah, fi ne yàlla fi ne wax ci alxuraan daal nee hmm. am na loo xam ne di ko bëgg. Hmm, hmm. fekk loolu gënul ci yéen dëgg la am na loo xam ne bëggu leen ko fekk loolu moo gën ci yéen parce que yéen xam leen moom man maa xam tout à fait donc loolu nag bon nañ ko nañ ko xam te xam ne bon c'est pas c'est pas la fin du monde daal voilà en attendant officialisation bi du côté du Bayern de Munich li maire ci am solo daal yàlla ko yàlla yëkkati amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi c'est le plus important activité voilà c'est ça c'est ça mbokk mi jërëjëf jërëjëf kàddu gi rafet na sell na donc nous euh, wéy ba di jël les auditeurs en attendant que la réalisation aussi euh, euh, woo yeneen i nit yi nga xamante ni ñoom itam danañ mën a wax ci xibaar gi xibaar gi nag moo di site spécialisé site européen sportif donc ñoom ñoo génne xibaar ni Sadio Mané dafa forfait pour la prochaine coupe du monde donc boo xoolee ñu ñu si bëri dañu ko daal di reprendre mais ba jamono ji ñu wax ak yéen amaguñu pour l'instant donc kenn ki nga bon du côté du Bayern amaguñu officialisation bi ñu dal di jëlat benen auditeur salam salaamaaleykum wa kooku rëcc na kooku rëcc na ñu dal di euh, jël wat kenen bon tuuti aussi Macky Sall tuuti na. Euh, bonjour Abdoulaye bonjour <laughs> Abdoulaye xanaa ne waa Sénégal. situation bi moo tax may nelaw. euh d'accord c'est fait ça waaw euh, man duma duma du ma médecin. Mhm. lu ne médecin li médecin yi mom ci seen liggéey ñoko mom mais joueur bu teelee génn ci terrain xel dalu te tamit démb quel que soit alpha Sadio Mané xam na plus ou moins combien de temps la war a pour mën a commencer yëngutuwaat te loolu bu ko Bayern définir équipe médicale Bayern buñ ko définir ba pare. Mhm. ci la ñuy mën xam. Sadio Mané dina man a top ak ñun. Hmm. ñu pour buñ démé ba ci digg bi mu mën a ci équipe bi. Hmm. ou man hmm. ndax avant dans euh, cette semaine j'avais un de mes footballeurs. qui s'appelle Fallou Sen de la Fiorentina. comme ça Sadio Mané rek. tout le jouer mu am lu mu sentir fekk dafa amul ben douleur bu nekk ci mom mais biñu défé examen ci ngone gi presque Fallou définir le mané ne quel que soit alpha dinaa deux mois Et après le résultat yi deux mois finalement il nous reviendra au mois de janvier pas Senbobo. Comme kon l'état de l'Esport, nee na Mané saluta il mondiale mhm. secondo l'équipe il mondiale in Qatar perde une des plus grandes protagonistes. Sadio Mané est costretto a dare forfait mhm. L'attaquante de Bayern Monaco uscito nel primo tempo della sfida contro il de Bremen, dovrà stare ai box diverse settimane per un problema al tendine. Mm-hmm. Kon Gazzetta dello Sport moom. man foog ma dem Italie information yi selon ci équipe ba nee na la coupe du monde. man mhm. foog ma dem Italie Baar ñoo ñoo di ko làkkanteeg ñoom Yacine Pouy fii. waaw information boobu daal. Ah, ah. comme ni mu wëree Sénégal. Eh. moo ngi nii Euh, monde bi yëpp. Mm-hmm. mais nak buñ ci dugg ay problème nan naan yi ñoo def li ñoo def la non non Sénégal bëgg nañ Sadio Mané mais aussi le Bayern Munich qui l'a pris comme travailleur. Mm-hmm. et qui le paye une fowe seen jour tout à fait. waaw kon ñoo ngi koy ñaanal. Mm-hmm. te tamit Aliou Cissé <laughs> xam na. ndax bu fi lii nekku tamit dina essayer inventer leneen nañu nekk autour de l'équipe ñaanal équipe bi def hmm. allez merci merci merci Abdoulaye donc merci donc euh, ñu di war parce que à partir de 45 donc on arrête euh, pour permettre aussi au service commercial d'aller trouver des sous, mais également à midi, vous retrouverez donc euh, le journal avec les différentes réactions, notamment celle du président de la FSF, la Fédération sénégalaise de football, Augustin euh, Senghor, euh, qui a parlé d'abord, euh, qui a parlé donc à la radio Futur Média, entre autres sommités du football sénégalais, africain et même mondial. Ablaye, on a mais bon comme on dit également on est en train de suivre aussi euh, du côté du Bayern de Munich euh, parce que nous avons le tweet du club aussi du euh, comment je vais dire le site du club mais jusqu'au moment où je vous parle aucune information concernant donc Sadio venant en tout cas de son club, voilà, un de ses plus proches, de Sénégal et le plus proche peut-être même de Sadio Mané, notre confrère Bakary Sissé, man tay suba ba ma journal aussi euh, ba wax ci mbirum Sadio Mané bi na rek am ma mais C'est euh, dara mais genre intrigue la won man itam ma mais depuis lors il n'a pas il n'a pas réagi sans que ba également euh, on se rate donc ñakul ni a itam mën na ci indi ay Il lu ci mënti am rek li gën rek on ne va pas forcer mais on attendra en tout cas de voir voilà donc on attendra de voir donc ce qui va se passer et là comme la RFM est internationale dañuy dal dem ba Allemagne euh Bavière Bavière nak bu ngeen ko déggee foofu de coup Bayern de Munich te doomu Sénégal bi nga xamanteni mo fa nek te ñu xam ko lool ragné ko lool mu lool ci wal football djégé lool Bayern de Munich Modi di Tiendou Cissé Tiendou ñu ngi lay ziar Tiendou Cissé. waaw nga lay dégg nga def sama va ngi ci jàmm. kooku la man la Cheikh Tidiane. ah Cheikh Tidiane Diagne comment tu vas. Tiendou na nga def. ça va mais la dégg mais xam nga rek yëngu-yëngu àdduna rek ca Cëndu. la noonu la noonu la mais Cëndu su ma jumul dafa mel ni gis naa la ci benn vidéo benn entraînement Bayern mu mel ni yow yaa doon wax ak Sadio maane waroon am fi nga naroon yóbbu mu ne la après dañuy dem Milan directement c'était pas toi. waa waa c'est moi. waaw kay j'ai j'ai nee naa parce que ginnaaw nga ma woon ma ne kii Cëndu la. ba Sadio taxaw ak yow en plein entraînement di wax ak yow. mais am na am na am na kuy téléphoné ci yéen de Chérif Chérif mu ngi téléphoné. mais man da nga may jël ndaxte Chérif yow tu es déjà en direct Chérif man maa ko jox sa numéro pour mu woo la te tu es en direct sur la RFM da ngay wax ak ñun ba pare c'est ah, urgent. <laughs> waaw ok allez Thiendou. waaw euh, quelles sont les dernières nouvelles parce que yow jege nga loolu Bayern gis naa la centre d'entraînement Bayern Munich nga seq waxtaan ak Sadio Mané lu yàggul dara lan nga ci mën a wax. mais ah. Ah, fu mu toll nii firi ñu rek baa rek mbay trophée le mondial là. wa yo lañu la ñuy déglu Déthié du fu toll ni le Sénégal retient son souffle. Neel Chérif je vais dinaa revenir ci moom léegi. mais mais mais mën nga dem mën nga dem tu déjà en direct sur la RFM damal ne t'occupe pas de Chérif moi je lui parlerai après. waaw mais mais mais transférer ma kay kon mu dem ci moom. non non non Tiendou euh, tu es déjà en direct sur la RFM je sais pas si on se comprend tu es déjà en direct sur la RFM Sénégal mu ngi lay déglu. waaw wax nga léegi léegi pose question. voilà ma question moi. Euh, quelles sont les nouvelles concernant Sadio Mané ndax coow li bëri na gaañu na gaañu ba un tweet officiel du Bayern Munich ah nga ni. ah ma légère au genou parce que man tay le matin. Mhm. au Bayern de Munich d'ailleurs j'ai eu l'occasion de parler avec euh, docteur Peter et ak mhm. docteur Joachim Hane. Mhm. ñom ñoy orthopédie ak ñom ñoy ñi nga chargé de la chirothérapie. waxtaan ak ñu ne y plus de peur que mal loolu lañ wax. Hmm. ah wax ci nga bëgg doon ñaar de Thierno ndax ñun fu mu toll nii moom Sénégal jàpp nañu ñu sa waay forfait na de. Thierno ah ça rate. ça rate man dégg. waaw maa ngi dégg waaw. waaw léegi man comme ni ma la waxee gis naa gis naa ñi nga xam ne ñoom ñooy les responsables moom mooy orthopédie. Mhm. waaw muy docteur Peter Ubalaka ak docteur Yohan Hane. Mhm. waxtaan naa ak ñoom. ma ne leen bon gosse bi démb dafa gañu genou ñun dafa gañu ma ne lan lañ ñu ne ma genou bi dal mo am touti problème mais nak plus de peur que de mal euh du doon lu xamné lu graw la quoi d'ailleurs ñi nga xamné ñom ñoo nekkon en réserve. ah la la mais ñi football dem ñe presque bon à part les remplaçants ken entraîné wu. Mhm. voilà mais plus de peur que de mal dal comme ni ñu koy waxee ah d'accord. est ce que du loolu m'expliquer le fait que waa waa Bayer ba tey waxaguñu dara ndax tuité wu mais man man nee les deux médecins. les deux médecins du club voilà. les deux médecins du club. voilà kon loolu moom na nous, en français hein, donc euh, une information qui a fini de faire le tour du monde. Vous êtes très proche de l'équipe du Bayern Munich, ça nous le savons depuis fort longtemps. Euh, on annonce le forfait de euh, Sadio Mané. Quelles sont les dernières nouvelles oh. que vous pouvez partager avec la RFM Bon, ce forfait n'est pas encore sûr parce que bon, j'ai eu l'occasion de parler avec Dr Peter Ubalak et Dr Joachim Hane qui m'ont dit que bon, plus de peur que de mal. Bon, il a eu hier, bien sûr, contre l'équipe de Werder de des problèmes de genoux, mais ça ira. C'est pas la fin du monde. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ah oui, il n'y a y, a, aucun signe qui montre que Sadio Mane serait forfait euh, pour la prochaine Coupe du Monde, en tout cas du Bernard. Non, il, ne le croit pas. Ah ouais. Il croit que bon, Sadio Mané va jouer la Coupe du Monde ah pour oui. le Sénégal. Ah oui, très bien. Très bien, Tiendou. Mhm. Voilà, merci. Merci à vous, Tiendou. Légui, tu peux t'occuper de, de Sherif Dia, n'est-ce pas ah, Ok, au Sherif Dia. Voilà, merci. Merci, Tiendou. Voilà. Donc, euh, Bungen ça reste quand même un, avis très important. Très important, je dis bien. Concernant donc euh, Sadio Mané, ndax ki ñuy mujjé waxal ni mo di Tiendou Cissé yàgg ngeen ko ci Futur Média dans l'émission du doyen Abdoulaye Diaw en direct des stades Mon bokk na si ñu daanaka euh, ci ñu gëna a Bayern Munich parce que mom yàgg na ci jamono même les anciens da il avait cette possibilité en tout cas d'aller avec le Bayern Munich man récemment Thiendou mi ngeen jot a dégg jot ko gis sur une vidéo à l'entraînement du Bayern Munich mu yëkëti ay euh di waxtaan ak Sadio Mané Sadio Mané ñëw ba ci wétam amul lu mu dégg ak moom ni à cette période là c'était le chauffeur de Sadio Mané donc euh, mom néna tay tey suba gi ci Thiendou Cissé dem na ba ce euh, centre d'entraînement bu Bayern de Munich jotna na waxtaan ak ñaari orthopédiste orthopédiste nag bu ngeen ko déggee pour ñu xamul mooy nga xamante ne ci mbirum yax la ñuy yëngu te ñooñu ñoo nekk ci club bi mais lañ ko wax ak li nga xam moom lañ jot a dégg daf mel ni yëf yi dafa safaanoo xëy na peut-être que loolu may expliquer disons euh, ce retard constaté dans le communiqué du Bayern de Munich léegi nag la mu xam ne moo di docteur yooyu ñoom nee nañ ko dëgg la Sadio Mané amee na gaañu gaañu waaye gaañu gaañu bu léger la te jàpp nañu ni que loolu mënu kaa xañ mu Daldi di yëngu ci coupe du monde ànd seeg Sénégal donc nañu tey gars yi nañu tey dal c'est la dernière information que nous avons reçue venant de quelqu'un de très réseauté au Bayern de Munich donc euh, fi mu toll nii fa la ñu mën a yem ndax euh, ku ci wax rek xëy na di nga wax loo maîtriser wul mais on attend d'avoir l'officialisation donc euh, du communiqué venant du Bayern de Munich kon mbokk mbokk yi fii lañ koy daldi di